aarif yi ma jàngal leen sariha ci faydu. mu ne aarif yi ma jàngal leen sariha ci faydu. sariha lim do mooy laa ilaha illallah. sariha lim do mooy laa ilaha illallah. muhammad rasulullah. muhammad rasulullah. booboo ci jàkk. booboo ci jàkk. ak julli. ak julli. ak woor. ak woor. haj makka. génne asaka. lii mooy sariha. loolu. loolu. yow nu ko faydu noo koy pressé ba mu dugg ci faydu. yow noo koy pressé ba mu dugg ci faydu. lépp lu bëgg a dugg ci xol bi lu yàlla dàq ko mooy laa. lépp lu bëgg a dugg ci xol bi te du yàlla dàq ko mooy laa. xam nga danga nga xam yàlla. xam nga danga xam yàlla. mere nit dugg ci nga di ko romb di wéy. mere nit dugg ci nga di ko romb di wéy. jëlal baleeg laa ilaha. su ci birisee rek su subaa soo dajeeg moom nuyu. su ci birisee rek bu subaa boo dajeeg moom nuyu ko. ndax dégg ngeen wax bi bu baax. illallahu illallahu nga jël nag jikkoy yàlla di saxal ko ci nga jël nag jikkoy yàlla yi saxal ko ci yow muhammad rasulullah muhammad rasulullah mooy nga jël sariya yonent bi saxal ko ci sa cër yi comme ni ma la ko waxee mooy nga jël sariya muhammad saxal ko ci sa cër yi comme ni mu la ko waxee waaye ci xaqiqa waaye ci xaqiqa julli julli mooy kitmaal bàyyi ñas mooy kitmaal bàyyi ñas waxtu woo nekkee ci xidma te yàlla tax mu ne waxtu woo nekkee ci xidma te yàlla tax yàlla ji yëngu ci sa xol bi tax mooy kaaba ga yàlla ji yëngu ci sa xol bi tax mooy kaaba gi. li ngay def nag mooy mu julli bi. li ngay def nag mooy posongu julli gi. kon waxtu bàyyi nee na. mu ne bàyyi nee na. boo weddee liggéeyal wali yu rek yow déggul a julli. boo weddee liggéeyal wali yu rek yow déggul a julli. xam nga li bàyyi bëgg a wax. mu ne xam nga li bàyyi bëgg a wax. julli duut jëf yu bees yuñ fi sos. julli duut jëf yu bees yu yuñ fi sos. jëf yuñ fi fekkoon ñuy def ci lañ retiré boolante ko muy. jëf yi ñu ci fekkoon ci leen retiré jël boole muy julli. dégg wax ndekki ndax dégg ngeen wax bi. doomu aadama fa daan taxaw naka jekk. doomu aadama fa daan taxaw naka jekk. ba tànk yi sadar. ba tànk yi sadar. waaye du ci jëlee dara. waaye du ci jëlee dara. doomu aadama dana sëgg. doomu aadama dana sëgg. doomu aadama dana toog. doomu aadama dana toog. loolu mooy julli. loolu mooy julli. ci misaal. ci misaal. téléphone. numéro yi téléphone. xaraf yi fi nekkoon. fi nekkoon. ca mag ña. ca mag ña. moom lañ lonkalante. moom lañ lonkalante. dalee ko ci ñaari set. dalee ko ci ñaari set set. teg siis ba muy juróom-ñeent. ñu ne orange sa ngoog. dalee ci set dalee ba mu jeex. ñu ne euh, euh, ñu ne expression ngoogu. kii bi ñu tegee. tigo kon li fi nekkoon mu ne kon li fi nekkoon nag. lañ formé waat lañ formé tuddee ko numéro. tuddee ko numéro. mu ne ak am njëriñ. noonu la julli mel. noonu la julli mel. kon waxtu woo nekkee di liggéeyal bàyyi ci ngëm ak imaan rek yaa ngi ci julli. woo nekkee di liggéeyal bàyyi ci ngëm ak imaan rek julli. lan mooy nag julli lekk fa koy yàq naan fa koy yàq. lan mooy julli lekk fa yàq naan fa yàq. ci biir liggéeyal bàyyi. mu ne ci biir liggéeyal bàyyi. yaa ngi ci yaa ngi ci. da jëw sa mbokk taalibe. da jëw sa mbokk taalibe. calam dikkut. calam dikkut. wala na mel. wala na mel. yaa ngay julli de lekk kuy julli de lekk julli bi yàqu na. yaa ngay julli de lekk kuy julli de lekk julli gi yàqu na. parce que yàlla tuddee na jëw lekk. parce que yàlla tuddee na jëw lekk. ayuhibu ahadukum. ayuhibu ahadukum. an yaakula. an yaakula. lahma axiihi. lahma axiihi. mayitan. mayitan. kon jëw yàlla tuddee na ko lekk. kon jëw yàlla tuddee na ko lekk. waxtu wooy liggéey ci biir baay. waxtu wooy liggéey ci biir baay. ci biir liggéey bi yaa ngay xas sa mbokki taalibe. ci biir liggéey bi yaa ngay xas sa mbokki taalibe. da ko ŋàññi Kou kou mwen ke yi juli delek Juli mga yakona waxtu woo nekkee ci biir liggéeyal baay. waxtu woo nekkee ci biir liggéeyal baay. de enterré mer. de enterré mer. wala rëy. wala rëy. muy dugg sa xol muy dugg sa xol. kooku mooy ki naan. kooku mooy ki naan. kon julli ga yàqu kon julli ga yàqu na. waxtu wooy liggéeyal baay. waxtu wooy liggéeyal baay. li nga ci war a jublu. li nga ci war a jublu. mooy fay ko teraanga. mooy fay ko teraanga. loolu rek nga ci war a jublu. rek nga ci war a jublu. waaye su fekkee yeneen nga ca jublu. waaye su fekkee yeneen nga ca jublu. kooku mooy ki dëddu xibla ji. ji. ba tey jullim gi yàqu na. kon jullee ngoog. lan mooy xoor lan mooy xoor. bàyyi nee na asaw mu kuloo tarkun. bàyyi nee na asaw mu kuloo tarkun. koor yëpp mooy ba. koor yëpp mooy ba. kon kon. waxtu woo mën a ba mbindeef. waxtu woo mën a ba mbindeef. ci sa xol bi ci sa xol bi. ci sa xel sa sa cër yi. jublu yàlla. jublu yàlla. loolu moo de xoor. moo de xoor. lan mooy xasaka. lan juróom-ñeent fukk boo compter. fukk ba juróom-ñeent. dañ ne la boo compté fukk baam am juróom-ñeent. sepp ci benn tuddee ko yalla sepp ci benn tuddee ko yàlla. yàlla baax yàlla baax. juróom-ñeent yëpp mu may la ko. juróom-ñeent yëpp mu may la ko. loo ca def baax na loo ca def baax na. loolu mooy lan. loolu mooy lan. fukki matière a ngi ci yow. fukki matière a ngi ci yow. benn nga cee jox yàlla mu may la la ca des yëpp. benn nga ciy jox yàlla mu may la ya ca des yëpp. sa juróom-ñaari cër yi. sa juróom-ñaari cër yi. jàppal jàppal. sa bakkan bi. sa bakkan bi. mooy bakkanam nelaw bakkanam lekk bakkanam naan. bakkanam nelaw bakkanam lekk bakkanam naan. muy juróom-ñett ngoogu. muy juróom-ñett ngoogu. Euh, euh, euh,

boo jëlee xol bi may ko yàlla rek génne nga xasaka boo jëlee xol bi may ko yàlla rek génne nga xasaka su boobaa may na la li ci des may na la li ci des yëpp waaye xol bi boo ci entré seytaane waaye xol bi boo ci entré seytaane entré ci bakkan entré ci bakkan entré ci hadduna entré ci hadduna yow génnee guloo xasaka yow génnee guloo xasaka jullit nag jullit nag bu bayee te génnewut xasaka bu bayee te génnewut xasaka fa waylun lillazina laa yutuuna zakat fa waylun lillazina na tos ko na ñi duñ ci yàlla nee na toskare ñeel na ñi nga xam ne dañu am xalal te duñ ci génne asaka kon xasaka ngoog mu ne kon xasaka ngoog kaaba gi nag kaaba gi nag dem aji màkka dem aji màkka mooy dem tërbiye ji mooy dem tërbiye ji ndax lu gis nga nit ñi ñoom ñaar gis nga nit ñi roo ñoom ñaar tarbiya tarbiya aji màkka aji màkka mooy nga sëñ Ousmane Diop tàggu na njabootam yëpp mooy sëñ Ousmane Diop tàggu na njabootam yëpp tàggu na bokk yi yëpp tàggu na bokk yi dagg na billet bi ma ngay pikiru. dagg na may mu ngay pikiru mu ngay pikiru. mu ngay pikiru. bu pikir bi paree. bu pikir bi paree. dugg na avion dugg na avion. bu demee bu demee. mii xaba. mii xaba. futti mboolem yére bu mu amoon. futti mboolem yére bu mu amoon. teg ko fële. teg ko fële. sol benn tëni bu weex tal. sol benn tëni bu weex tal. te pareetut futti ko. te pareetut futti ko. fekk xaj gi jeexut. fekk xaj gi jeexut. dugg na ci labbayka allahuma labbayka. dugg na ci labbayka allahuma labbayka. moom moom moom moom. loolu dafa ni docteur bi. loolu dafa niroog tarbiya ba nga demee de wuti yàlla ba nga demee de wuti yàlla ba nga fa sa njaboot ba nga fa sa njaboot ba fa sa liggéey ba fa sa liggéey ba fa sa lépp ba fa sa lépp pikir bi pikir bi mooy waar yi la sa mbokki taalibe mooy waar yi la sa mbokki taalibe yi da waar pour nga muñ ta coonob tarbiya pour nga muñ coonob tarbiya avion bi avion bi mooy xalaat yi ngay xalaat nooy def ba àgg mooy xalaat yi ngay xalaat nooy def ba àgg mii xabi mii xabi mooy seexul mu rabbi mooy seexul mu rabbi futti gi nga futti futti gi nga futti sol benn tëni sol benn tëni mooy fi mu ne mooy fi mu ne yàlla rek ngay bëgg yàlla rek ngay bëgg julli boo julli bëggoo ca àjjana julli boo julli bëggoo ca àjjana wirdu woo wirdu bëggoo ca àjjana wirdu woo wirdu bëggoo ca àjjana yàlla rek rek loolu mooy benn tëni bi loolu mooy benn tëni bi nga commencé nag la bayka allahuma la bayka nga commencé nag la bayka allahuma la bayka mooy dog bañ la jox mooy dog bañ la jox soo demee nag soo demee nag ba xaal bi dugg la ba xaal bi dugg la mooy taxaw arafa mooy taxaw arafa xaal bi dugg na la xaal dugg na la waxal nañ la baadiya waxal nañ la baadiya la muy firi la muy firi nga ne ko yàlla taxaw di settantal liñ la wax. taxaw di settantal nag liñ la wax. parce que settantal gi rek moo la mën a yóbbu. parce que settantal gi rek moo la mën a yóbbu. lekk sàqar mi moo lay jox neexat. lekk sàqar mi moo lay jox neexat wi. waaye boo dugalee te sàqar mi wula. waaye boo dugalee te sàqar mi wula. biir bi mën naa reg waaye doo xam neexat wi. biir bi mën naa reg waaye doo xam neexat wi. kon xalaat yi ngay xalaat. kon xalaat yi ngay xalaat. tëral kurus gi tëral kurus gi. loolu mooy taxaw arafa. loolu mooy taxaw arafa. xaal bi. xaal bi mooy jant bi mooy jant bi. soxaal bi fayee. soxaal bi fayee. xàggu la te xàggu la mooy kus jant bi sooyee ñu dem musdalifa mooy su jant bi sooyee ñu dem musdalifa musdalifa mooy jege musdalifa mooy jege kooku jege na yàlla kooku jege na yàlla bu bët setee bu bët setee ñu dem masaril haram mu ñu dem masaril haram bu jant bi fenkaatoo bu jant bi fenkaatoo foofa la ñuy foree juróom-ñaari xeer yi ñuy sànni jamra foofa la ñuy foree juróom-ñaari xeer yi ñuy sànni jamra mooy xaal bi bu fiqaatoo mooy bu xaal bi fiqaatoo xaal boobu nga doon xalaat xaal boobu nga doon xalaat suux na suux na bu xaal bi fiqaatoo fiqaatoo waal bi fiqaatoo foofa ngay bucci xasamaani juróom-ñaar ak lam lamboo foofa ngay bucci xasamaani juróom-ñaar ak lam lamboo sànni ko ci paxam yàlla sànni ko ci paxam yàlla sànni ko ci paxam yonent sànni ko ci paxam yonent loolu mooy jamra yi loolu mooy jamra yi fi mu ne fi mu ne hadduna ak àllaaxira set na ci sa xol hadduna ak àllaaxira set na ci sa xel mi waaye sa bakkan bi nag waaye sa bakkan bi nag pour nga wax baat bi pour nga wax baat bi mooy jafe-jafe jafe-jafe bi boo ko mën a wax rek. boo ko mën a wax rek. loolu mooy rendi hadiyu bi. loolu mooy rendi hadiyu bi. lu tax bakkan bi ñu tuddee ko hadiyu. lu tax bakkan bi ñu tuddee ko hadiyu. dañ koo mayoon sëriñ bi. dañ koo mayoon sëriñ bi. ma ngi lay rootloo. ma ngi lay rootloo. ma ngi lay baleloo. ma ngi lay baleloo. ma ngi lay ñàkkaloo nelaw. ma ngi lay ñàkkaloo nelaw. kon tarbiya gi dañoo niroo. kon tarbiya gi dañoo niroo. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. xam yàlla goog nag. mu ne xam yàlla goog nag. mosu fee dañ mosu fee dañ ca aadama ba pencam yàlla ca aadama ba pencam yàlla waaye waaye joxe hin wi joxe hin wi ak jëfin wi ak jëfin wi moo moom moo moo na bon gaa yi moo na bon gaa yi waaye du ne bàyyi fa fi indi lu fi kenn mu ne du ne bàyyi fa fi indi lu kenn indiwul joxe hin wi moo xuute joxe hin wi moo xuute parce que xam yàlla bu jàkk parce que xam yàlla bu jàkk da nga say jabar da nga wàcc say jabar da dem ci àll bi da nga dem ci bi doo taa sangu doo taa ceeb ak diw doo taa lekk ceeb ak diw. da ngeen wax bu baax da ngeen wax bu baax. doo taa nelaw doo taa nelaw. ay xat ay xat. nga door a xàgg nga door a xàgg. waaye nag yow mi ci am ñetti fan xàgg. waaye yow mi ci am la nga gis. la nga gis ka ca amoon fanweeri moom la gis. ka ka ca amoon fanweeri moom la gis. kon jëf jëfin yi moo wuute waaye lañ gis benn la. jëfin yi moo wuute waaye lañ gis benn la. loolu ngay jàng ci tariixa tiijaan. loolu ngay jàng ci tariixa tiijaan ñu ne. xutbu yi xutbu yi. buñ gisoon liñ préparé taalibey Seexu Tiijaan yi. buñ gisoon liñ préparé taalibey Seexu Tiijaan yi. ñu ne ko yàlla yow nga ñuy fontoo joxu lañu tus. ñu ne ko yàlla nga ñuy fontoo joxu lañu tus. Abdou Khadir Jili fanweeri at la tarbiya wala ñaar fukki at ak nangam ca sëg a la sëg ya nekkoon dem na ba sagal sagal yi tàgg ci boppam dem na ba sagal sagal yi boppam bi eh, gajj bi lay def dàll gajj bi la def dàll ñaar fukki at ñaar fukki at mu door a mu doog a àgg nga ñëw ci nga ñëw ci sëñ Ousmane Diop yaa nga jógee koo ca cigarette sax yaa nga jógee ca wax xam ngeen ko dégg nga botti julli yaa na ci mbareet julli ba waxambaane ba tey julli wu la mu ne botti julli yaa ngi na ci mbareet ba nga doyee waxambaane ba tey julli wu la wax leen wax leen yaa ngi ne mbareet ci bati boti koor ya yaa ngi ne mbareet ci boti koor suñ noonu la fayal loola door a àgg ba tey yaa nga suñ noonu la fayal loolu doog a àgg ba tey ca nga ñëw rek sëñ Ousmane Diop jox la. nga ñëw rek sëñ Ousmane jox la. balaa ñetti fan nga xàgg. balaa ñetti fan nga xàgg. la Abdul Qadir jaay ñaar fukki at. la Abdul Qadir jaay ñaar fukki at. ci mar ak xiif ak sonn. ci mar ak xiif ak sonn. yow nga jot ko ci ñetti fan. yow nga jot ko ci ñetti fan. ci naan ndox mu sedd dagg dank dank ceeb tëdd ci Eiffage. mu ne ci naan ndox mu sedd dank ci xam nga ne Abdul Qadir bu ne ko yàlla sa maqaam baa nga jëlal nga waay fontoo war mu ne xam nga ne Abdul Qadir bu ne ko yàlla sa fekk nga may fontoo wax na dëgg. loolu moo taxoon ñu ne leen. loolu moo taxoon ñu ne leen. xut bu yu njëkk yi bu ñu leen wanoon lañ taa lañ préparé taalibe Seexu Tijaan lañ préparé lañ wax mu ne xut bu yu njëkk yi suñ leen wanoon lañ préparé taalibe Seexu Tijaan lañ préparé lañ wax de. kon nga xamee ne booba maanaam xañ bi ñuy préparé sotteegut mu ne xañ bi ñuy préparé sotteegut ba mu sottee taajal nañ ko ña fa ne ba mu sottee taajal nañ ko ña fa ne ña yàkkamti woon ñibbi xañ ba raw na leen ña yàkkamti woon ñibbi xañ ba raw na leen est-ce que li wax yéen koy mu ne est-ce que li mu wax yéen a koy dégg ngoog kon Cheikh Tidiane li mu doon préparé mu ne mu ngoog kon Cheikh Tidiane li mu doon préparé ba xañ ba sottee ba xañ ba sottee bàyyi la dajaleel mu ñëw ñu jox ko ko bàyyi la dajaleel mu ñëw ñu jox ko ko ñu àndoog bàyyi bàyyi taajal ñu àndoog bàyyi bàyyi taajal ñu ko de waaye affaire bi moom léeboo luppoon la mu ne ña jamonoon te ñoom ñëpp xamuñ faydu dara parce que ñoom ñëpp xamuñ ci faydu kanam la taatil fayda ngan di yaa ngi ko faydu dana ñëw ne mu ne mu ne kanu mu ne kanu المدفع الكبير المدفع الكبير يرمي من بعيد يرمي من بعيد kanu gu mag mu ne kanu gu mag gi dana sànni balam dana sànni balam waaye fi mu koy sànnee fa muy dalee nag day sori mu ne fi mu koy sànnee ak fa muy dalee nag day sori diggante Baye ak Cheikh Tidiane li ko manqué téeméeri at bëriwul mu ne diggante Baye ak Cheikh Tidiane li ko manqué téeméeri at bëriwul kon distance bi soriwutam kon distance bi soriwutam waaye xam ngeen ne Fass Cheikh Tidiane itam ak Kaolack sori na waaye xam ngeen ne Fass Cheikh Tidiane ak Kaolack it sori na waaye li gën a yéemu mooy li ko Cheikh Tidiane léemee bal bal bi waaye li yéemu nag li ko Cheikh Tidiane léemee léemee bal bi rëbb bi rëbb bi bi ko bëdoom bi rombee bi ko bëdoom bi rombee wala kileel gi wala kéwél gi mu ŋaat fetal gi mu ŋaat fetal gi ne ko tirr ne ko tirr bal ba rey kéwél ga bal ba rey kéwél ga fiñ ko tiiree fi la fi la njëriñ li ne wala fa bal ba dal fa la njëriñ la ne mu ne fiñ ko tiiree fi la njëriñ li ne wala fa bal ba dal fa la njëriñ li ne wax leen fa bal ba dal fa bal ba dal fa la njëriñ la ne mu ne fa bal ba dal fa la njëriñ la ne foofu mooy soppi reeru kër gi de foofu mooy soppi reeru kër gi de waaye fi bal bi newoon waaye fi bal bi nekkoon dañ ko fi wàcc daw dem moo tax naar yi wàcc yooyu daw dikk ci baay Diagne jërëjëf jërëjëf Abdou Barhama. kon ñu mu ne kon ñu ngi leen bu baax. Seydina bu baax. nit ko am kóllëre. nit ko am kóllëre la. këyit ci nguur gi moo ma koy toppatoo. mu ne këyit bu muy toppatoo ci nguur gi moo ko koy toppatool. bu tukkee bitim réew lu may dox moom moo ma koy. bu tukkee bitim réew lu muy dox moo ko koy doxal. mosuma koy soppi. koy soppi. fa soppiwut jikkoom. fa soppiwut jikkoom. gis nga xaal. gis nga xaal. bu fekkee yàlla la. bu fekkee yàlla la. ndoxam Evian ndoxam Evian la. kaabul da fenkee mu ne bu yeboo ñu liggéey ko kaabul fa jant bi di fenkee waaye bu dikkee ba Sénégal fi jant bi da soyee waaye bu dikkee ba Sénégal fi jant di soyee it soo ko mosee soo ko mosee lam safoon ca kaabul lam safoon ca kaabul moom lay fii loolu mooy xaalab yàlla. loolu mooy xaalab yàlla. borom du soppeeku mukk. borom du soppeeku mukk. xaal bi nag su fekkee ndoxam mu dul Evian la. mu ne xaal bi nag su fekkee ndox mu dul Evian la. xam nga ndaw si. xam nga ndaw si. bu ñu rootee robinet bi de ba nar a sotti ci ndaale. bu ñu rootee robinet bi ba nar a sotti ci ndaale. dafay raxas su fekkee ku silvise su fekkee jigéen ju silvise la. su fekkee jigéen ju silvise la. dafay raxas ndaali ba mu set ñetti yoon. dafay raxas ndaali ba mu set ñetti yoon. mu indi morso bu laa laab bu xereñ. mu andi morso bu laab bu xereñ. takk ko takk ko. jël ndox mi def ci. jël ndox mi def ci. salte bi yëpp topp morso bi mu sànni. salte bi yëpp topp morso bi mu sànni. ñii naan. ñii naan. waaye bu ëllëgee. waaye bu ëllëgee. dana fa fekk nëxit. dana fa fekk nëxit. fu nëxit sàmba jógee. fu nëxit sàmba jógee. ndaale raxasoon nañ. ndaale raxasoon nañ ko. ndox mi xentoon nañ ko. ndox mi xentoon nañ ko. kon fu nëxit sàmba jógee. kon fu nëxit sàmba ci biir ndox mi ci biir ndox mi. xaal bàngoog xaal bàngoog xaal dana sell xaal dana sell waaye sa xalaati bopp nëxal waaye sa xalaati bopp nëxal ko diwoo ma wax lii diwoo ma wax lii wóorul la wóorul la diw moo la diw moo ne la nga di ko romb di wéy nga di ko romb di wéy mënatuloo koy nuyu yaa ngay nëxal sa ndaali yaa ngay nëxal sa ndaali te nag xamoo benn ndaa boo naanee boo mooy boobu te nag amoo benn ndaa boo naanee boo mooy boobu kon nag kon nag sëñ Ousmane sëñ Ousmane ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy gërëm de gërëm ay dëkkandooram de gërëm leen yàlla. waaye na leen wóor waaye na leen wóor ne. bisab yonent yàlla Muhammad. bisab yonent yàlla Muhammad. képp ku ko màggal. képp ku ko màggal. moo xam teew ñàkkaa nelaw la. moo xam teew ñàkkaa nelaw la. moo xam déglu waxtaan wu jëm ci moom la. moo tax moo xam déglu waxtaan wu jëm ci moom la. moo xam nga joxe sa alal. moo xam nga joxe sa yàlla jéggal na la la toppati dara. na la du la toppati dara. loolu yéen ñëpp na ngeen ko xam. loolu yéen ñëpp na ngeen ko xam. te nag. te nag li la koy xamal li la koy xamal. yeneen tubaa nga xëy bu de. yeneen tubaa nga xëy bu de. waaye toog gi nga toog. waaye toog gi nga toog. da déglu mbiram. da déglu mbiram. moom yëg na ko moom yëg na ko. loo joxe ci yoonam. loo joxe ci yoonam. yëg na ko machine bi ñu tuddee Sonatel. machine bi ñu tuddee Sonatel. mu nga fële xaw ma fu mu ne. mu ne mu nga fële xaw ma fu ne. fii ci Betawaar. téléphone yi fi ne. téléphone yi fi ne. ëpp na junne. ëpp na junne. bii dalee ci six. bii dalee ci six. m ci deux. m ci deux. m ci trois. m ci trois. cinq. m ci quatre. m ci quatre. ñoom ñëpp benn bi dalee ci six m deux. xam na ne numéro bi m ci deux. kooku moo jënd ñaar téeméer. kooku bi dalee ci cinq m ci quatre. moo jënd ñeenti téeméer moo jënd ñeenti téeméer bi dalee ci deux bi dalee ci deux même ci trois même ci trois moo jënd bu junne moo jënd bu junne wala boog wala boog bi dalee ci six bi dalee ci six ma ngay woote ma ngay woote ci kër di lay woote ci kër di lay woote ba dalee ci deux ba dalee ci deux ci ligne lay woote ci ligne lay woote ba dalee ci trois ba dalee ci trois ci bonus lay woote ci bonus lay woote te moom ma nga coppooral te moom ma nga coppooral fële te ma si ni tàqale ko waay su tubaab ma ko ko dàq kon loo def ci yonent yàlla Muhammad. Muhammad. numéro boo ko a ko mën defee. yonent yëg na ko teel na la ko teel na la ko. te dana ko delloo. kon ñu leen di ndokkeel. nii ci guddi yi demee nii ngeen saxal ko at mu ne ngeen saxal ko at mu ne màggal yonent yàlla Muhammad màggal yonent yàlla Muhammad nit muccee na ci nit muccee na ci benn waay boo xam ne benn waay boo xam ne buur daf ko tëkku rey buur daf ko tëkku rey bër set bër set garde yi jël si ko garde yi jël si ko mu wax ci xolam ne mu wax ci xolam ne su ma yàlla musalee ci lii su ma yàlla musalee ci lii danaa seet benn bés ma tuddee ko gàmmu. danaa seet benn bés ma tuddee ko gàmmu. oo nit ñi jox leen lekk jox leen naan ñu waxtaan ci yonent. oo nit ñi jox leen lekk jox leen naan ñu waxtaan ci yonent. loolu ci xolam la ko wax. loolu ci xolam la ko wax. garde yi jiital ko ñëw taxaw. garde yi jiital ko ñëw taxaw. Eh, eh, buur bi ne ko buur bi ko ba mu yàgg ne ko waaye def. mu ne ko dara mu ne ko dara. Ah, ah, parce que man bi ma laay woo. man bi ma laay woo. rey la laa la wooyee. rey la laa la wooyee woon. te dogu woon naa ci te dogu ne suma xol bi. te far fos ma def ko. mooy teral la nga ñibbi. kon am na loo def. kon am na loo def. mu ne ko dama xëy niseroon ne. mu ne dama niseroon ne. soo ma su ma yàlla musalee saw xay. su ma yàlla musalee ci saw xay. danaa seet benn bés ma tuddee ko gàmmu màggal yonent bi. danaa seet benn bés ma tuddee ko gàmmu màggal yonent bi. buur bi rocc fukki junne ca temps booba nga xam ne ay millions la. buur bi rocc fukki junne ca temps booba nga xam ne ay millions la. ne ko guddi nga nar a def maa la ci dimbale. ne ko guddi googu nga nar a def maa la ci dimbale nii dama ñibbi. loolu lim lay jàngal. mu ne loolu lim lay jàngal. mooy ñaan yàlla bi gën a gaaw. mooy ñaan yàlla bi gën a gaaw. mooy nga ne yàlla soo ma defalee nangam danaa def nangam. mooy yàlla soo ma defalee nangam danaa def nangam. lu lool loola rëy rëy dana def. mu ne lu yàlla dana def. problème bi. waaye problème bi. mi ngi ci yàlla defal la ko. mu ngi ci yàlla defal la ko. yàlla daal soo ma mayoon visa. yàlla daal soo ma mayoon visa. ba ma dem Amérique. ba ma dem Amérique. suñ jumaa suñ suñ koñ bi danaa fi tabax jumaa. yalla jaat fa moy jaat rek ñu wissel la nga dem yalla jaat fa muy jaat rek ñu wissel la nga dem nga dem fatte fatelu nga dem fatte fatelu da nga xamne yalla wu da nga xamne yalla wu de day dik ak yow day dik ak yow yalla soma yon dom yalla ma yon dom dana def nangam ak nangam dana def nangam ak nangam yalla dana la may dom yalla dana la may dom bi ci gëna gaaw bi ci gëna gaaw moy nga ne ko yalla nga ne ko yalla ma yon dom ma yon dom dana ko tuddé sa yonent bi muhammad dana ko tuddé sa yonent bu Muhammad bépp jigéen ju fas loolu ci xolam bépp jigéen bu fas loolu ci xolam wala góor wala góor muy dëgg te muy dëgg bis ko fasee bis bi mu ko fasee balaa dellu si balaa dellu si dana xam doom problème bi nag mu ngi ci. problème bi nag mu ngi ci. nga mbas nit ñi maab laa maab ba nga tuddee ko noo mooy Muhammad. nit ñi maab laa maab ba nga tuddee ko noo mooy Muhammad. yàlla dana wàcce ci yow naqar woo xam ne doo ko mën a lay. yàlla dana wàcce ci yow naqar woo xam ne doo ko mën a lay. dafa am benn waay bu ko mës a def. dafa am benn bu ko mës a def. feebar euh, feebar feebar bu métti. nisër ci xolam ne. nisër ci xolam ne. su ko yàlla wéralee. su ko yàlla wéralee. dana seet li bakkan bi gën a bëgg mu bakko. dana seet li bakkan bi gën a bëgg mu weral ko mu ne tàndarma la gën a bëgg mu ne tàndarma la gën a bëgg ci lu ñuy lekk ci lu ñuy lekk bana tàndarma bana tàndarma bis nag bis nag benn taalibeem benn taalibeem daal di hëmb tàndarma ju rafet daal di hëmb tàndarma ju rafet te neex te neex daal di ko ko indil de daal di ko ko indil mu ne hee mu ne hee man de maa nisiroon ak yàlla waaye daal ah tàndarma xamut man de maa nisiroon ak yàlla waaye tàndarma xamut xam nga ba mu bëggee ba mu bëggee affaire am ba sa xamaloon na tàndarma. mu ne xam nga ba mu bëggee affaire am ba xamaloon na tàndarma. bi mu bëggee wuruj yàlla mu ñàkkal tàndarma. mu ne bi mu bëggee wuruj yàlla mu ñàkkal tàndarma. rek mu lekk ci tàndarma ji ba xolam sedd. rek mu lekk ci tàndarma ji ba xolam sedd. bët set mu dem marché. bët set mu dem marché. romb benn belto bu rafet ci jaay benn jaaykatu belto. romb benn belto bu rafet ci jaaykatu belto. mu koy xool. mu ngi koy xool. di xool di xool. ba mu yàgg mu wéy. ba mu yàgg mu wéy. gisatuñ belto ba. waa ji dab ko ci biir marché ba. waa ji dab ko ci marché ba. ne ko yaa suma belto man yow la parce que ni nga ko doon xoolee te gisatuma ko. parce que ni nga ko doon xoolee te gisatuma ko. ñu yóbbu ko police. ñu yóbbu ko police. police visité. police visité. daal fekk ci belto gi ci moom. daal di fekk belto gi ci moom. ah yow ndeke li nga yaay sëriñ bi ndeke sàcc nga. ah yow li nga fi wax yaay sëriñ bi ndeke yow sàcc nga. dalee wax garde yi ne futti leen ko. daal di wax garde yi ne futti leen ko. jëflanteeg moom jëflanteeg moom. biñ ko futtee biñ ko futtee. ba bëgg koy dóor. ba bëgg koy dóor. miiru tabax gi wax. miiru tabax gi wax. ne leen ko dóor. ne leen ko dóor. dañ koy yar. dañ koy yar. dafa am lu mu wax ak yàlla. dafa am lu mu wax ak yàlla. la mu waxoon yàlla def ko. la mu waxoon yàlla def ko. moom nag la mu waxoon ko. moom nag la mu waxoon defut ko. ci la yàlla indile ay wile. ci la ko yàlla indilee xay wile. waaye sàccut ko. waaye sàccut ko. ñu ne ko yàlla. dégg ngeen wax bu baax ndax dégg ngeen wax ma bu baax kon waxtu woo ni sëree ak yàlla kon waxtu woo ni sëree ak yàlla loola moom pareel yàlla dana ko def loola moom pareel yàlla dana ko def waaye su defee defu la waaye su defee defu la ci jamonoy malik ibnu dinar ci jamonoy malik ibnu dinar benn waaye dafa feebar benn waaye dafa feebar ñu faj faj mu tër ñu faj faj mu tër mu ne yàlla mu ne yàlla feebar bi su ma ci muccee feebar bi su ma ci muccee ba toog ci suma njaboot bi dëlanteeg yàlla dëlanteeg yàlla yàlla wéral ko yàlla wéral ko mun na xasaay la ma waxoon defu ko mun na xasaay la ma waxoon ko ko. ñu dem ab jamono rek feebar bi del siwaat ci doole joo gën a métti jooja. ñu dem ab jamono rek feebar bi del siwaat ci doole joo gën a métti jooja. mu dellu waxati yàlla loolu. mu dellu waxati yàlla loolu. yàlla wéral ko mu naxasaay mu naxasaay. jooyam feebar ba dikkee doole joo xam ne. jooyam dañ koy yërëm parce que nelaw guddi. ñëpp dañ koy yërëm parce que nelaw guddi. Malick Ibnu Dinaar xaritam la ñëw ne ko saawaay. Malick Ibnu Dinaar xaritam la ñëw yow sa feebar bi ni méttee doo seetloo dalante ak yàlla su la wéralee. jaww ji wax jaww ji wax. ne ko kook fenkat la ne ko kook fenkat la. wóolootuñ ko wóolootuñ ko. dalante naag ñun ñaari yoon. dalante naag ñun ñaari yoon. di ko fausser. di ko fausser. wóolootuñ ko wóolootuñ ko. feebar bii ci laay dee. feebar bii ci laay dee. dégg ngeen wax bi bu baax ndax dégg ngeen wax bi bu baax kon feebar ñaan gi gën a gaaw a nangu mu ne kon ñaan gi gën a gaaw a nangu mooy nga ne yàlla nga ne yàlla Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ba Hasan ak Useynu feebaree ba Hasan ak Useynu feebaree mu ne ko yàlla. mu ne ko yàlla. soo leen wéralee. soo leen wéralee. woor ñetti fan may la ko. danaa woor ñetti fan may la ko. te feebar ba dafa métti. te feebar ba dafa métti. dañ ne pelek wét. dañ ne pelek wét. na ñetti fan. waaye nag xoor na ñetti fan yi. kon waxtu woo dalanteeg yàlla. kon waxtu woo dalanteeg yàlla. yàlla dana def la mu wax. yàlla dana def la mu wax. essayé leen loolu. essayé ku ko ci def ci soxla. ku ko ci def ci soxla. soxla ba dana faj. soxla ba dana faju. waaye xëy su fajoo te defu la la wax. dëkkandoo yi daañu la yërëm. sa dëkkandoo yi daañu la yërëm. kon nag kon nag. ngi ñaan yàlla. ñu ngi ñaan yàlla. ci barke weer wi. ci barke weer wi. yàlla bi may weeru gàmmu yonent yàlla moo judd ci. yàlla bi may weeru gàmmu yonent yàlla moo ma judd ci. weer ñaanut ko yàlla. weer ñaanut ko yàlla. yàllaa ko ko may ci coobareem. yàllaa ko ko may ci coobareem. kenn ku nekk ci ñun. kenn ku nekk ci ñun. am na soxla boo xam ne. am na soxla boo xam ne. bu faju woon rek. bu faju woon rek. addunaam yëpp baax. addunaam yëpp baax. képp ku fi ne. képp ku fi ne. soxla booba yàlla la yàlla na ko yàlla faj. ba nga xamal sa bopp ne sa soxla ba. ba nga xamal sa bopp ne sa soxla bi faju na.